Ousa nuyu naa la. eh sama sëriñ maa ngi lay ziar. ci waaye sant yàlla alhamdulilah kay. man may laajte Ousa da ngaa bëre wala nax la demee woon parce que Ousa nag muy waxantee dëgg di entraîné rek di denc amul benn sens non non dama bëgg a xam Ousa da ngaa pare pour bëre boo da ngay entraîné di denc. non non non bàyyi ma moom maa ngi ci ba léegi dem rek promoteur rek mooy woo di ma jox mbër mi daanoon euh, zëm te nekk ci Balla Gaye. jëmee ngaa jël Lat doon ko xam mais dama ko ne dama may doon ma jox leen Boy Dakar mais dama ko mujjoon delloo ñu jox ko Ronaldinho promoteur rek de mais damay bëri de parce que toujours damay entraîné <laughs> maa ngi ci lamb ji de bàyyi ma bëri de mais man boo yi nga may wax yëpp boo yëpp dañoo tàng diis ma xaw a jaaxal bokkuñu maa dàq bëri man moom ponkor jaaxalu ma mais Ousseynou gën ngaa bëri nag Ousseynou mais maa ngi contact ak ñoom Franc Dam ñoom Goro Sok soo ma gisee toujours nga yaakaar ne ma nekk ci aw man du ma caaxaan du xaw jigéen bi mel xaw ma dara damay jaante rek wala sëñ Tuubaa mais Ousa bi nga dalee wax xaw jigéen ak léegi dafa yàgg est ce que loolu ba léegi sëñ Tuubaa xam na ne ak ma ak maa yomb mais damay jaante parce que ñu ma tuddee moo tax muy sëñ muy borom jumaa moo tax toujours damay jaante mais dafa métti nag bi nga dalee wax ba yaa ngi koy téye yaa ngi téye sa doole waaw mais bëgg nag parce li moom xam naa suñu ne moom dafa baax a combat bu neex ñu gisaat Ousa bi ni gis. Mor Kang Kang mën naa bëri moom Alioune Sèye Junior mën moom parce que tamit sooy si Koña laa bëgg a jógee ak Marley maa ngeen 18 combats 13 victoires 3 défaites ñaari match nul palmarès gënu te vraiment maa ngi entraîné chaque damay mel nekk ci avance parce man sama sama deuxième tour entraînement la tudd. damay daj ay coono yu métti barki sëñ Tuba Mbacke. moo daan kaay kaay kaay kaay moo kaay. dama da ngay entraîné pour la femme wala da ngay da ngaa da ngaa bëgg a dugg si làmb da nga bëgg a jël avance mais ñi mu laaj dañoo xaw a diis. non diis moo kànkang Alioune Seye. Alioune Seye si yow non. ba pare nee na caaxaanul boobaa ak léegi. dama doon toog deux samay dem di la surface. waaw parce que xam doole te doole da nga koy téye quoi. soo xamul jigéen xamoo dara doole lay nekk ci yow man génn ma dara de dama jeex de. te ab bay a si quoi kon ñetti at a sa doole fekkante na doole doole daam lu ko génne mais man dama ko di liggéey sëñ Tuubaa di liggéey nekk ci café gi di jaayante di entraîné mais mënut a génn mënta génn sa diggante ak Petit doon nañ ko fi wax waaw Petit Niang moom ma ko mais sama gars yi ñoo ko bëggul quoi mais Alioune Seye Junior wala Mor Kang ku ñu ma jox ma bëri Maga la mën naa bëri moom waaw bu neex na Tidiane Faye parce que moom moom Tidiane defet moo daan Ngën Njaañ moo la daan ak kan. ak euh, Koña. ak Tidiane Faye bu neex la parce que champion la tamit ndaanaan la war mën a bëri moom. Hmm. daa ba pare daan jëlaat buy daan sos te daan kay région. waaw ah. jëlaat buy xam nga si doon moo ñëpp. man sama wér gi kenn du si dugg de. tànk dem kenn du ko jël. non dama ko dellu si kawam. dañ juum jox ko victoire bi après ma def recours jox ma ko. di ñaan tamit seen scène bi dem ba nekk télé. liggéey bi liggéey bi macha allah. noo gisee Moussa Diouf. entraînement moom am na ci fulla am na fay dafa am yaram tegin te jàmbar la ñoo ngi koy ma dafa ko ndam lu sedd boobu bi bëri la Boy Jules Boy Jules la ndaanaan la mais Moussa dafa mën xeex pare mën a bëri doole ji ëpp na jëm na ko yàlla fal cat baax na kontaan naa jëriñ